jëlee bi nga xam ne nag président Macky Sall na ko Mimi Touré ci bopp conseil économique social et environnemental bu ñu sukkandikoo ci journal Libération nag loolu li ko waral mooy ab doxalin boo xam ne eh, jaarul yoon suñu naataangoo yi sax yemuñ ci loolu nee nañ kii di président Macky sax nekkul Mimi Touré rek la fa dàq wante itam eh, dàq na kon foofu la ca conseil économique social et environnemental dàq na fa ki nga xam ne moom moo nekkoon eh, agent comptable particulier mbir mu bees am na kon euh, ci mbirum Souleymane Téliko moom nag moom mooy magistrat boobu nga xam ne fi nekk nii daal dafa am ay problème ak justice bu Sénégal moom nag gannaaw bi nga xamee ne kon euh, def audition amal nañ ko sax audition kon gannaaw bi nga xam ne déglu nañ ko le 28 octobre dernier fële ca cour suprême te ki ko amaloon di procureur général. près euh, près la cour d'appel de Ziguinchor muy Assane Ndiaye nga xam ne kon moom lañ désigné woon comme rapporteur gannaaw bi nga xam ne nag amal nañ édition boobu kon kooku la di Assane Ndiaye kon déposé na kon lii di rapport kon déposé na ko ci tableau président bu cour suprême bu ci suñu naataango yu source A bu fekkee ne nag dossier bi classé wuñ ko sans suite kon lii di conseil supérieur de la magistrature kon dinañ fixé li nga xam ne moom mooy procès kooku la di juge Souleymane Teliko procès bi nag bu fekkee am na nag ñu fàttali ne kon. kenn du ko teewee maanaam procès lay doon boo xam ne euh, kenn du ko ubbi la public bi buñ paree kon Sénégal dañuy dem fële ci Afrique euh, président Alassane Ouattara nag nga xam ne moom da doon yóotu ab troisième mandat foofale ca Côte d'Ivoire moom nag euh, kii di commission électorale indépendante bu dëkk ba nag kon nee nañ daal annoncé nañ ne kon proclamé nañ ne moom lañ tabbaat président ci quatre-vingt-quatorze virgule vingt-sept pour cent ci voix yi muy sax score bu jéggi dayoo loolu nag li ko waral mooy lii di opposition ba ñoom euh, ñu fàttali ne dañoo boycotté lii di élection euh, présidentielle ba tax na daal kon kii di Alassane man Ouattara am soixante-dix-huit ans te doon yóotu ab troisième mandat kon falaat nañ ko ak quatre-vingt-quatorze virgule vingt-sept pour cent ci loolu ci ci ci li nga xam ne kon moom mooy voix yi euh, lii nag ay résultat provisoires la yoo xam ne kon commission électorale indépendante ba joxe na ko démb ci guddi larme bu France nag euh, te nekk fële ca Mali ñoom nag dañoo faat lu toll ci juróom fukk lu toll cinquante kon ci ay jihadistes yoo xam ne kon ñu ngi bokk ci al-Qaïda loolu nag ki ko xamle euh, moom mooy euh, ministre française des armées di Florence Parly gannaaw bi nga xamee kon mu ngi doon amal mu ngi doon amal kon tukki foofu la ca Mali ca Bamako ci la xamle ne daal lii di l'armée bu France kon faat nañ lu toll ci cinquante jihadistes yoo xam ne kon ñu ngi bokk ci al-Qaïda Euh, ci Al-Qaïda euh, loolu nag mu ne mu ngi am vendredi gannaaw ab opération boo xam ne kon euh, ñu ngi ko doon amal foofu la ca Mali te l'armée française kon doon ko amal ci lañ faat loolu kon lim bu toll noonu ci ay jihadistes mais loolu nag mu ngi amee ci fi ñuy wax zone des trois frontières lu soriwul dara sax ak Burkina Faso. xibaaru àdduna nag dañ koy ubbeek xibaaru kon international dañ koy ubbeek fële ca. autrice nga xam ne kon ab fusillade daal moo fa am démb ab fusillade boo xam ne kon jot na sax am benn nit bu si dee amit ñu bëri yoo xam ne am nañ si ay gaañu gaañu fusillade boobu nag muy attaque boobu nag mu ngi am ci différent lieux six différents lieux yoo xam ne yu capitale ba la foofu la ci autriche euh, bokk na ci sax euh, quartier bi nga xam ne kon euh, kon bokk na ci ab quartier boo xam ne sax moo ab quartier boo xam ne kon ay synagogue yi synagogue synagogue yu gën a am solo kon ci pays ba am na bokk na ci kon ab quartier boo xam ne synagogue bu gën a am solo eh, ci dëkk ba kon foofu la nekk quartier boobu kon eh, bokk na ci loolu les attaques yooyu nga xam ne kon amal nañ ko foofu la ci autoriste ba benn nit faatu si ay nit yu bëri it am si ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo nag ci declaration bu ministre intérieur bu autoriste nee na nag loolu nag dañoo yaakaar sax ab attaque ab attaque terroriste kon dañoo jàpp ne ab attaque daal terroriste la te sax ñoom nee nañ ñu ko amal du benn nit kon ay nit yu bëri ñoom ñoo ko amal. bésub mardi bi nag euh, ci la waa Amérique euh, fas yéena tabb kon euh, seen président kon élection présidentielle kon dina tàmbali gannaaw bi nga xamee ne sax am na ay élection ay vote yoo xam ne jot nañ ko amal en ligne kon bésub bésub mardi bi tey ci la daal lu ay million ngi million kon ay million ngi ci ay américain kon tey la tey tey lañ fas yéene tabb kon seen président ñu war tànn nag si diggante Donald Trump ak kii di Joe Biden groupe jihadiste bi ñuy woowee alqaida nag au au maghreb islamique di ak mii ñoom nag euh, démb daal ci altine démb ci altine ji daal dañoo woote ne bépp nit boo xam ne daal kon day amal ay wax yu ñaaw daal kon yu si mel ni saak ak yi di mel kon jëmale ko si yeneent bi nee nañ kooku dañ kaa war a faat te ñoom sax nee nañ menacé nañ sax kii di président Emmanuel Macron nee nañ ñoom daal dinañ vengé wu kon ñoom nee nañ dinañ fayu dinañ fayu kon gannaaw bi nga xamee ne kon président Emmanuel Macron amaloon na kon déclaration boobu ne ñoom daal du ñu bàyyi caricature yi nga xam ne kon ñu ngi koy def ñoom ñoo ngi di kon groupe jihadiste al au Maghreb au Maghreb islamique ñoom daal menacé nañ Emmanuel Macron nee nañ daal kon dinañ fayu dinañ fayul dinañ fayul kon dinañ fayu daal mbir moomu tey it nee nañ daal képp koo xam ne daal mu ngi amal daal ay wax yu ñaaw wala ay saaga yu ni mel jëmale ko si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ laa war a faat li ñu ne tey ci ay xibaar kon rafetu seen teewlu di leen jox dikk daje ëllëg.